Euh, suñu yi ak ñoo déggoon tubaab. xamul tax boo nekkee ca biir classe ba ca cours de récréation bu booy génn sa sa njàngalekat du la làkk leneen lu dul tubaab boobu tey classe ba ba maître ka lay jàngal wolof la lay làkk pour expliquer la léegi am na loo xamee ni leneen kenn empêche nos langues nationales yooyu ñu gën promouvoir ba nga xamee ni professeur Sakhé Thiam waxoon mooy nañu fexe ñu làkk mën nañ ci def ne mën nañ ci algèbre mën nañ cee géométrie cee arithmétique mën nañ cee te lépp da mhm. amul muy développé wu ci làkku jàmbur te amul nañ période maître Ablaye génération lu doon wax mooy nañ fexe ba ñu am benn langue boo xamee ni ci Afrique ñuy xool diggante le pël fulaani wala yooyu wala swahili parce que réew yu bari dañoo se langue waaw aujourd'hui Sénégal lañu ne yàlla def wolof bi ñuy làkk boo demee Gambie ña ngi koy làkk euh, suñu système dañ ko hérité ci colon bi mu ñu làkkaloo français par force tey boo xoolee école yu ñu ngi gën a anglais bi par exemple ci seen jàng mu am sax ay école yoo xamee ni anglais bi lañuy ñuy gën a Euh, euh, parce que anglais boobu ngay làkk foo dem ci àdduna ñu tontu la français bi foo francophonie la peut-être am na fu mu yem dañ ko hérité ci colon bi mais au-delà ñun suñu yooyu dañoo jël seen langue nationale def ko langue bi nga xam mooy bi ñu bi ñu gën a wax ci ci ci réew ma Rwanda lan moo tax président pourtant dégg ak moo dégg français mais du làkk français ci cérémonie officielle wala lu mu mën a doon yu préfère parler anglais wala mu jël seen làkk ñoom wax mais ñun suñu réew yi on est toujours encore booy wax sax faw sama genre yi nga raxaale ci français bi parce que français boobu daf ñoo dominer dominer mais fan la ñu yóbbu yóbbuñu fenn wolof bi nañ ko gën a ñoŋal ak yeneen yi euh, langue yi nga xam ni ça codi été codifié pour permettre élève bi mën nga ko jàngal ci làkkam mu xam ci ci làkkam ba mën a tekk ci làkkam mais boo ko jàngalee tubaab ñun du ñu tubaab tubaab bi sax dañuy def ay fautes mais ñun ñoo ci rawati sax moom xool tànk neew ah liñ naan plastronnant et susurrant di pour yow noonu bokkoo euh, tànk ne defoo loolu pour yow non euh, yaa ngi ci ginnaaw alors nit a ngi fi sëriñ buub tey wala fam boobu muy làkk dëgg fa su ma xoolee Ablaye Naar dégg na tubaab ndax ma ngay liir tubaab di ko tekk ci wolof mais wolofam bi moom gën wolofam bi man moo ma dàqal téeméer yoon tubaab sëriñ buub dina na lu jeex wolofam di parce que langue de travail la bu mën a utiliser par rapport mais mën sax parce que ñamuy jëflanteel anglais boobu la ñu gën a làkk mais ñun ñu toog rek jàpp suñu tubaab bi nii rek yaakaar ne chu boo doon jàngale.